vraiment mu nekk loo xamante ne lu am solo la

accompagner leen aussi xam ngeen ne aussi commune Sangalkam dafa yaatu ñu ngi ci 152 ñu sol ay infrastructure di liggéey ci santé ak éducation donc tey entreprise mel ni occasion tey si wàllu RSE mën a accompagner la commune te si wàllu waxtaan nañ si am na audience boo xamante le directeur régional accordé na ko pour ñu toog waxtaan xool au niveau local la mais développement local lu ñu mën a fexe ba duñ nekk ay ouvrier seulement mais ñu nekk ay professionnels ne jàng mi am na fi ñu mën leen intégrer dans cette société là pour que ñu mën a am suñu jàpp pour mu mën emploi donc loolu aussi am nañu ci yaakaar bu baax a baax di am mbégte vraiment teew fi tey santeen aussi leeral si def déplacement bi tey ñëw ànd ak ñu ngi si bés bi aussi nekk loo xam lu am solo la donte ne deux ans yi bi ñu ñëwee ba léegi wala woo ñoom vraiment amaguñ ci ay jéego mais on a fait la demande à maintes reprises mais tey yàlla def nañu tey ñëw naa fi am naa occasion pour rencontrer vraiment tous les directeurs yi nga xam ñoo fi ne ak autorités yi fi nekk ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo fi ne échangé nañ ak ñoom am nañ si yaakaar bu baax a baax que ne vraiment d' après réponse yi ma jot incha allah bientôt dinañ ma accordé benn audience ñu waxtaan échanger xool ci RSE boobu nañ ma dafa Nimba loo xam vraiment dugg ci commune bu baax a baax en terme de santé éducation assainissement.